rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi fi teew yépp nuyu mboolem mbokki jullit yi nga xam ne àndoon nañu ñun ci màggal gi ci bam tàmbalee ba nëga di leen dalal ñi toog ci jataay bi ñëpp ci turu sëñ seex mi toog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 daal di tax daal di bàgg bàgg bàgg ba mu yàgg mu daal di jëkk ne eh, daal di waxanteeg tubaab bi tubaab bi jóg waxanteeg moom daal jóg yéeg ci kaw étage bi sëñ yat yi sëñ bi yoroon mu daal koy sànni sëñ bi mel na meloon sëñ ma taar penda jeng ne ko ah Mbàkke ana tànk ba mu ne ko boole na sa borom boole na kook tubaab bi